بسم الله حمدا لمن أرسل خير مرسل بخير أمة لخير الملل وأفضل الصلاة والسلام على لباب الصفوة الأنام وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه وتابعين نعم السلف الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله بقي دلنا جامو في آه، dalee nag jàmm ci jotaay bi nga xam ne mooy euh, dawlatul xilaafatul abbasiyatu ñu toll ci jotaayu ñeen fukk ak benn ci silsile bi nga xam ne mooy dawlatul xilaafatul abbasiyatu mbokk yi démb ñi ngi taxawoon fi nga xam ne rey nañu euh, Lamine di al amin te nekkoon juróom-benneelu xalifa ci dawlatul abbasiya léegi nag ñu war a dugg ci juróom-ñaareelu xalifa bi di Abdullahi almamun euh, moom nag bi mu juddoo waxoon nañ leen na nga xam ne noonu la juddoo mm. keroog ba euh, Haruna Rashid bi Haruna Rashid nekkee euh, njiit keroog bis biñ jaayante ak moom bis boobu la Mamun ñuy judd bis boobu tamit la alhaadi Moussa alhaadi génn àdduna moo tax ñu daal wax naan bisa ngi nii daal boo xam ne xalifa da cey genn aduna khalifa falu ci lola juddu ci loola nak benn bis kep la moy bis bobu nga xamne ci la ma'mun mi juddo bayam ci la nek bu mom ci la juddu musa al Hadi ci la genn aduna léegi nak kon mom jaayante nañu ak mom ci gox yep nak ndax ñepp dañoo woon al amin genn aduna maanaam moom bi mu faloo ñëpp a toog ñëpp a euh, kontaan ci toog gi nga xam ne toog na ko waxoon naa leen ne moom nag bi mu faloo dafa ñëw changé mbir yi dafa changé système bi yëpp ba euh, Banu Abbas ci seen bopp dawla dawlatul abbasiya ñu yaakaar ne kii kat dafa moom dafa leen a coup d'état maanaam kii dafa ñëw pour pour jaay leen wala ndax bi mu ñëwee dafa changé système bi yëpp la changé jaxase mbir yi jaxase carte gi te incha allah da ngeen di jëkk la ca xew maanaam mujj sax ña nekkoon dawlatul abbasiya ñoo mujj jël seen i ngàndaay nedd kii nag dañ jàkkaarloo ak moom parce que kii dafa ñëw pour xeex ñu wala dafa ñëw pour jaay ñu wala lan moo xew moom dafa sensé mbir yi jaxasewaat carte gi complètement bi nga xam ne nag euh, rey nañu euh, rakkam di al amin al tahir dafa bind leetar daal di koy booleeg bopp bi biñ biñ ko jàppee dagg bopp bi wax naa leen ne ci doq lañ ko rendee dagg bopp bi ba noppi jël xeej xeej lañ jël samp ko ci bopp bi daal di koy wékk ci mbeddi Baxdaad yi ba mu am ñaari fan ñu door a jël bopp bi yónnee ko fële nga xam ne mooy Xuraasaan léegi nag dañ leen di wax leetar bi nga xam ne leetar bi ànd ak bopp bi euh, dafa am leetar boo xam ne moom la ñu bind boole ko bopp bi daal di koy yónnee fële ca Xurasaan yónnee ko ki nga xam ne mooy Mamun euh, leetar boobu Tahir euh, ibnu na moom mi nga xam ne moo jiite woon guerre bi maanaam moo fa jëlee al amin dafa bind ci leetar bi ne ko wax ko tafasil yëpp ni nga xam ne noonu la xeex bi demee ba niñ ko rayee leetar boobu dañ cee nettali neneen ci façon rey bu bokkul ak Euh, beneen rey bi nga xam ne euh, moo xew ndax dañoo wax Mamun ne ko ñun daal biñ jubee Baxdaad xam nga ne am nañu fukki weer ak juróom ci buntu Baxdaad mënuñaa dugg waaye biñ jëlee sunu man janeeq yi euh, man janeeq yi ñu yoroon bombardé Baxdaad ba miir yi daanu ñu dugg ci biir soldaar yi dugg ci biir al amin daw bi mu dawee nag uti géej ga nee nañu gaal gu ndaw moom la jël moom ak ay euh, ñi ko gënoon a jege maanaam day nettali ni nga xam ne noonu la ñu jàppee euh, al amin mu ne dugg nañ ci biir fekk nañ ko fa mu daw bi mu dawee am na ay fan daal di uti géej ga jël gaal gu ndaw bi mu demee yàkkamti gaal gi jël toj na ñu bëree bëri ña mu àndaloon lab nañu dee moom nag yow xam nga ne dafa mënoon ndox moo tax moom féey na ba génnee ca tefes ga bi mu génnee am na benn néeg bu ndaw bu nekkoon bu nekkoon foofu mu daal di daw dugg fa foofu la làqatu nee nañu bi mu demee fekk na fa benn waay boo xamante ni bii te côté géej gi la nekkoon moom am fa ab néegam di napp jën ak yooyu su bëccëgee mu dem jaayi al amin bi mu dawee te néeg boobu la dugg ne daal di fay làqatu bi mu demee nee nañu ba nga jàq-jàq ba nga xam ne nee nañu xolam tuuti ko doon mu génn ngir tiit bu mu tiit Eh. Tahir nena sama soldari top ko biñu ko topé ba dugg sa neeg bobu dajji buntu ba fekk ko fa biñ ko fa fekke lañ ko japp nee biñ ko jappé nak ma nga doon tawassul sax kaddu yu ne wax nako nan bu len ma ray ba len ma man la sen bour man la al amin man la domi haruna rasid man la mbok yonantu ndax man ngeen di ray ni mbokk yi nee nañu kàddu yi bi ñu ko nettalee almamun jàpp leen kàddu yi nag parce que leetar bi dafa dafa am lu mu nar a suyee ca kanam ca diggante tahir mi ak euh, al euh, mamun ndax maanaam nii ñu ko nettalee ne nii lañ ko rayee ak ni mu doon tawasulee man la man la al amin man la seen buur man la mbokk man la mbokk mamun man la doomi haaruna rasid man la mbokk bi yonantu mën ngeen di def lii nee ñu jàpp ko fes ko ba muy windeelu ñu kott ko béccërni ko mu daal di daanu ñu tër ko rendike dagg bopp bi daal di jël bopp bi ak leetar bi ni xeex bi demee yëpp ñu yónnee ko fa li nga xam ne mooy Xuraasaan euh, waaye nag wax naa leen ne nii ñu ko reyee nii euh, jàpp leen ko ndax dañ ko soxla ca kanam su ko defee nag léegi kon al ma'mun Euh, falu na Maamun léegi euh, nekk na buur kon nag dugg nañu ci juróom-ñaareelu xalifa bi ci dawlatul abbasiya moom bi mu jël nguur gi mi ngi am ñaar fukki at euh, ak juróom-ñett bi nga xam ne mi ngi jël nguur gi boobu am na ñaar fukki at ak juróom-ñett léegi nag bi ñu bi Tahir bombardé Bagdad ba pare Zubayda nga xam ne moo nekkoon waajuru al amin ak doom ak doomam Moussa mi nga xam ne moo waral coow lii yëpp ndax baayam dafa ne woon moom lay jox nguur gi ak beneen rakkam bu ndaw ñoom ñëpp léegi dañoo làqatu woon ca palais bi nga xam ne mooy bu Abu Jaafaril Mansoor léegi nag Saahir ci la daal di digle ne nañ dem jëli Subayda nañ dem jëli ña maanaam njabootam al amin rey nañ ko ba pare dagg nañ bopp bi léegi moom bopp bi yónnee nañ ko xoraasan mais nañ dem jëli kii bi yaayam ak doom yi nañ leen jëli léegi soldaar yi ànd dem fekk ko ca xasru bu Abu Jaafaril Mansoor parce que foofu dañu làqatu woon soldaar yi dem fëgg ne amirul madina moo ñu yónni nee na daf leen a soxla aywa soldaar yi jàpp ko jàpp jigéen ji ak ñaari doom yu ndaw yi daal di leen di yóbbu ca Tahir bi ñu demee mu ne Subayda mi moom yóbbu leen ko ca xasarul xuld ngeen bàyyi ko foofu su ko defee ñu laaj ndigal ci Mamun ba xam lu mu def ci moom waaye ñaari doom yi mu boole leen ak armée ñu yóbbu leen fële ca Xuraasaan moom ñoom ñii moom buñ fi bu leen fi ngelaw upp noonu la leen jëlee boole leen ak armée ñu jigee Bagdad dem Xuraasaan léegi Zubayda moom mi ngi ci beneen pale bi ñu garder ko foofu noonu di xaar ba xam lan la al amin di def ci moom léegi nag bi xeex yëpp pare dafa am beneen coow bu judduwaat ndax soldaar yi dañoo taxaw léegi nag di laaj xaalis maanaam seen euh, crime de guerre moom la ñuy laaj léegi xeex nañu jëlee nañ fi buur bi rey nañ ko sonn nañu daanaka attaque bu topp ñu ngi ci buntu Bagdad di xeex tey seen bakkan manoon na cee des léegi nag ñu wax Tahir na ko dañoo bëgg xaalis nag jox ñu jox ñu xaalis ndax xeex yi bu amaan ba pare bu ñu gañee maanaam soldaar yëpp dañ leen di tasaare xaalis jox leen xaalis pour bu ñu ñibbee war dem gi seen ak njaboot ñoom itamit dallu loolu moo daan am ci xeex yëpp léegi soldaar yi wax Tahir na ko ah ayo yàgg na de yàgg na doo doo ñëw boog yëngutoo xaalis bi mu ne leen nag a ah, waaw yéen xam ngeen ne fiñ toll nii xaalis amu fi ndax yàgg biñ yàgg fii liñ yoroon yëpp dépensé nañ ko te xam ngeen ne ñun ñu ngi door a toog nii kii ñu ngi koy door a rey yoruñu xaalis fiñ toll nii léegi nag liñ yoroon yëpp dépensé nañ ko foofu nag soldaar yu bëree bëri am ñu fippu am ñu fippu ba naroon a dal ci kaw Tahir mais nañu nee nee nañu dafa daw làqatu ji soldaar yi nag fippu di nag kii nga xam ne mooy Moussa naati ki nga xam ne moom la bàyyam tuddee woon annaatiqu bil xaqi léegi ki bàyyee ki al waxoon ne ko moom la bëggoon a jox nguur gi soldaar yi nag léegi ak li nekk xale yëpp ne comme nii la demee moom nag génn ñu jaayante ak moom soldaar yi yëpp yi nga xam ne ñoo ànd ñoo fi jëlee al amin de yi jógee Xuraasaan ñoom léegi nee nañu comme nii la demee ñoo ko rey ñoo def lépp te joxuñ leen xaalis léegi na Moussa génn ñu jaayante ak moom mais nag fii Tahir politique bu rëy la def moo tax bi mu rayee bi mu leen bi mu rayee seen baay rek daf leen a jël ñoom ci tànk-tànk bi jëlee leen fi gaaw yóbbu leen Xuraasaan moo tax Tahir euh, borom xam-xam yi bu ñu nettali maanaam dañ koy tagg pour nee nañu xel mi mu yore xel bi mu yore woon ni mu ñëwee dafa yéem gaay yi ndax situation bu ñëw mu réglé ko ci tàng-tàng bi moo tax bi soldaar yi génnee ne léegi wut ñu wutale pale ba nee na Moussa génn ñu ne leen yéen def leen nànk Moussa ak rakam ñoom dem nañ Xorasaan yóbbu nañ leen yàgg na Tahir jëlee nañ leen fi yàgg na léegi Tahir nu mu def bi bi mu xamee ne musiba nar naa am parce que kon boo moytuwul soldaar yi euh, bu ñu fippoo maanaam loolu loolu loolu dina garaaw te kon mën nañoo fipp ba wutali Xuraasaan dem ca Almamun léegi dafa dem ci Tahir ibnu Xuseyn dafa dem ci jaaykat yi ya nekkoon Baxdaad ba mu demee mu leb leen xaalis mu leb leen xaalis bu bëree bëri xam nga euh, jamono yi bu leen lebee dañ koy lebal parce que dañu naan ah, kii moo sës ci buur bi léegi moo sës ci Mamun yii kii kay kum leb nga lebal kii fi ñu toll ñoom ñu ngi waaj a toog bu ñu toogee seen affaire baax te te ñoom dañu naan man maa ko lebaloon kii kii ngay naa gaaw lebal ko fu mu dem ci commerçant yi ne xaalis laa soxla ñu ne ko ñaata nga soxla waxal waxal loo soxla e, exemple bu ne millions laa soxla ñu jox ko mu dem ci keneen mu jox ko mu dem ci keneen mu jox ko mu dajale sa ca Bagdad alal ju bëree bëree bëree bëri daal di koy séddale soldaar yi soldaar yëpp nag daal di dal daal di wax ne ah waaw lii moo mën a am jàmm am noonu la def ba régler problème bi yépp léegi nag ajjuma gi ca topp nag mu def moom Tahir ibnu Xuseyna ki ki fa jëlee al amin mbokk yi kii est ce que bu ñu leen waxee ne moom ak al mamun nar nañoo am problème da ngeen ko gëm ah kay nar nañoo am problème ca kanam lay doon moom itamit ak ki nga xam ne mooy al fadlu ibnu sahl bi nga xam ne moom itamit ñi jàppale al amin al al mamun ci la bokk moo tax ñuy wax naan asawratu takulu abnaaha maanaam safara ay doomi boppam lay lekk te bi nafs maanaam lii nar a xew nii mooy la xewoon ca diggante abo muslim al qurasani ak abo jaafar al mansour abo muslim al qurasani moom moo tuur deretam ak ñaqam ba dawlatul abbas yat taxaw waaye gis ngeen fañ mujjee ak moom rey bu ñaaw boobu euh, lañ ko rey scénario boobu nag moo nar a répété wuwaat fii nii léegi euh, tahir bi mu defee loolu yëpp maanaam ba ñu tuddee woon ko euh, zoliyam mi nay ni borom ñaari nday joor yi maanaam ñu ne waaw kii lu tax ñu tuddee ko borom ñaari nday joor yi ba benn waay sax mi ngi ko doon woy naan ko kilta yadayhi yami kilta yadayhi yamin yaminun ne ko kii daal loxoom yëpp ay ay ay ndeyjoor la ñu ne ci biir xeex bi daa am koo xam ne daf ko bi ko dóoree jaasi ji maanaam daf ko dóor benn yoon rek yaram bi xaaj ñaari xaaj mu dagg ci digg bi ñu ne ko kii moo tax ñu tuddee ko euh, maanaam borom ñaari ndeyjoor yi ñii ne déedéet Euh, lim jiite woon Xuraasaan ak euh, Bagdad moo tax ñu tuddee ko boroom ñaari ndeyjoor yi léegi bi mu defee foofu discours bu mag boobu euh, keroog nee nañu jumaa ja dafa fees dell parce que mooy xutba bi njëkk bi war a topp ci xew-xew bi xam nga loolu même bu doon Sénégal sax ñëppay ñëw ñëpp a koy fekk si ba xam lan la ñuy wax maanaam ray nañu buur bi fi nekkoon jabaram mi ngi ci mi ngi ci Euh, mi ngi ci maanaam résidence euh, surveillée lañ koy wax xaw ma maanaam fi lay tëj di di la garder ay doomam jël nañ leen yóbbu leen Xuraasaan léegi xew-xew boobu ki jëf loolu lan la nar a wax xam nga loolu ñëpp koy bëgg xam moo tax jàkka ji dafa fees dell mu def xutba nag daa di xutba xutba bu rëy boobu daa di ubbee qulil qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بايا جيخ بور واني نغور يالا كاي جيلي سي لخو كوفا نيه تكو سي لخو كوفا نيه جيلي نفي الامين تك نفي المامون مو دال لين دي واخ لي تخ مو جيف لولو موي لي تخ مو ديف لولو موي ييوانال بور ديفار legui nak gannaaw lolou léegi gannaaw ba xew-xew yi yëpp amee nag ba ñu am ñaari at lépp dal maanaam diggante xew-xew yi ba ñaari at lépp dal lépp normal dara xewul léegi nag euh, almamun bi mu jógee xuraasaan ñëw baxdaad mamun nu mu def dafa sensé lim njëkk a sensé mooy léegi maanaam drapeau bu ñuul bi Euh, dawlatul abbasiya amoon nga xam ne moom lañ ko xamee woon ak yére yu ñuul yi ñu daan sol maanaam euh, yow boo yoree lu ñuul rek loolu day wane ne yow ci dawlatul abbasiya nga bokk seen drapeau yeek seen yëpp lu ñuul lañ ko xamee woon même buñ bindee leetar sax lu ñuul lañ koy wërale pour ñu xam ne dawlatul abbasiya moo nekk nii Maamoun bi mu ñëwee daf see dafa jëlee loolu sens ko indi drapeau bu wert léegi nag drapeau bu wert moom la indi jëlee fi loolu yëpp euh, <coughs> bi mu muy ñëw sax dafa digle ne léegi euh, waa Bagdad nañ fa jëlee lépp lu ñuul drapeau yëpp nañ ko nañ ko fa jëlee ñu indi drapeau yu weer bi loolu amee nag waa Bagdad tamit ne ah kii lu bëgg wax ni yéen lii moo newoon sunu shiar bi sunuy maam yëpp lii lañ leen xamee woon yow lii kii lu a def nii ñu ne ah, buur bi daal moo ko wax drapeau yu werte yi daal moom lañuy jël léegi yu ñuul yi euh, nañ ko fi jëlee léegi nag loolu ñu ne mooy mandarga bi njëkk bi wane ne ah, a kii dafe bëgga jële jëlee maanaam daal li mu def noonu daal kenn xamu ko loolu it jur xeex bu rëy rëy rëy ci diggante moom ak ay mbokki boppam beneen bi dafa ne moom bu fi jógee àll yi arida moo koy wuutu doomi Muusa al Kazim di doomi euh, Jaafaru Saadix di sëtu Xuseyna di doomi Ali ibn Abi Talib léegi foofu dañu ne ah kii dafay bëgg jëlee dawlatul abbasiya maanaam léegi euh, sëti Ali ibn Abi Talib la fi bëgg a teg ndax moom dafa ne léegi bu fi jugee Ali Rida ki nga xam ne moo nekk euh, te dañ ci ñëw imaam la ci suwa chia yi dañoo yaakaar ne dañoo am fukki ma ak ñaar yoo xam ne ay ma maasum lañu Aliyu Rida mi kenn la ci ñoom te loolu dañ ci ñëw incha allah léegi nag moom mi la ma Mahmoud wax ne bu fi jugee moo ko wara a wuutu loolu tamit waa kër Abbas dawlatul Abbas yéen ne duñ ko nangu ñoo lànk duñ loolu loolu duñ ko nangu mu juraat xeex bu rëy yi léegi bi mu ne nañ fi jëlee. nañ fi jëlee euh, siyaar yu ñuul yi indi drapeau yu werte yi te bu fi jógee àll yi moom war a wuutu ñu ne nag kii nag léegi maanaam euh, mu mel ni léegi foofu nag ci la nguuru chia taxawee nag léegi ne euh, maanaam am nañu occasion léegi ñëpp xam ne kon Banu Abbas léegi seen nguur fii lay yem baay baay Banu Abbas seen affaire yëpp jeex na léegi waa kër Ali ibn Abi Talib mooy jóg bi lolu amé wa baghdad dawlatul abbasiya ñoomi dañoy dañoo jóg ne loolu duñ ko nangu daa né euh ñun timit dañ nañu benen xex na a jugaat ñu na dañ nañu ba set wicci ci ki nga xamné moy al ma'mun ñoom ñu jaayante ak Ibrahim mi nga xamné moy doomi euh al mahdi Muhammad di doomi Abu Jaafarin Mansour ibrahim bi moy ki nga xamné mom la al amin woowoon biñ ko biñ bi ñu ko tëjee te mu woowoon ko naan ko kaay gis nga weer wi ni mu rafetee ak guddi gi kaay pour ñu waxtaan Ibrahima moomu léegi moom la dawlatul abbasiya wax ne jëlee nañ fi al amin yow la ñuy fal ndax al amin li mu bëgg a def xamuñu ko or nañu du lii lañ waxante woon ak moom euh, daf ñoo or léegi mi ngi bëgg a jël nguur gi teg ko ci loxo doomi Ali ibn Abi Talib te lii ñu xamuñu ko woon orkat la daf ñoo or ñoom nag léegi ñu bëree bëri jaayante ak Ibrahim bi nga xam ne doomi Muhammad al Mahdi la di doomi Abu Jaafar al Mansour ñu ne ko comme kii la mu bëgg a def mooy yóbbu nguur gi ci loxo Ali ibn Abi Talib léegi nag beneen xeex kon nar naa judduwaat mu jur xeex bu rëy a rëy nit ñu bëree bëri dee ci fële ca Bagdad ci diggante lan maanaam drapeau bu werte bi ak drapo bu ñuul bi drapeau yu werte yi mooy waa Ali ibn Abi Talib drapeau yu ñuul yi mooy waa kër euh, Banu Abbas ba nga xam ne nee nañu même benn kër sax da ngay gis ñu bokk ndey ak bàyyi daan xeex képp koo xam ne gis nga ko mu sol lu ñuul kee sol lu wert xeex ba tàmbali xeex boobu nag mujj nekk xeex bu yaatu bu rëy ci diggante wert ak ñuul te mbokk yi est xam ngeen ne maanaam chia euh, yi seen mandarga mooy drapo bu wert loola bi tafasil incha allah dañ ci ñëw ak kii nga xam ne mooy euh, kenn ci aima yi nga xam ne kenn maanaam euh, ci maasum yi nga xam ne bis bi ci ni ko siyan yi njortee nag ndax ndax maasum euh, amul gannaaw yonente alayhi salaatu wasalaam keroog biñ dencee sang bu tedd bi ca Madina ca bisu àllarba boobu ñu suul ko keroog la maasum jeex ci kaw suuf kenn nekkutul maasum waaye nag chia yi ñoom ñoo yaakaar ne dafa am fukki nit ak ñaar yu nekk maasum ginnaaw yonentu alayhi salaam euh, ñooñu kenn la ci ñoom ci euh, toogal mi kenn la ci ñoom ci ki nga xam ne moo moo nar a uutu euh, moo fi nar a uutu almamun